Mal euh, Soumaré maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu madame. voilà Malla nga nekk coordonnateur bu section forum civil Saraya euh, bokk ci Transparency International ngeen génne benn communiqué di wax ni entreprise ou exploitation minière Indenour euh, Mining Corporation euh, bokk ci filiale Sabadola Gold opération bi exploité dafay exploité sax askanu Sabadola ak Saraya ci wàllum exploitation d'or bi Euh, ban analyse nga si daal di def par rapport ak loolu. non mooy jàngat bu may kii si si si communiqué boobu comme nu ma nu ma ko expliqué si communiqué rek xam nga ñun bo boo déggee Sahara rek wala boo déggee Sabodala Sénégal ngay njëkk a xalaat mais Sabodala bu xamal ne que Sabodala si département Sahara la nekk si région Kédougou donc euh, si boo gisee ñu génnee bataaxal bi mooy communiqué bu ñu génnee noonu c'est parce que dañoo sonn dañoo sonn si beaucoup de choses dañoo sonn xale yi xëy xale yi liggéeyuñu si euh, wàllu euh, euh, kii wérgu yaram donc ça si demee si wàllu ndox si wàllu financement jigéen yi loolu yëpp lu lu lu lu ñu seetaan la lu ñu réunir la moo tax ñu génnee bataaxal bi euh, par rapport à à maanaam daal euh, pauvreté extrême moo am foofu. ca Sabadola ak Saraya waaw ay jafe-jafe. parce que lu ma war a si yaatal jafe-jafe yi lan la exactement bu ngeen feebaree da ngeen mënul faju wala. non dañu bon am nañu ay fajukaay mais xam nga rek. plateau bon c'est yi mooy loolu daal hmm. mooy loolu quoi boo xoolee prat euh, yoon yi problème la boo xoolee comme lu ma wax wàllu ndox xam nga ñu ngi dugg si nord instant yi boo xoolee à partir de mois de février voire mois de mars euh, fii si département fépp laa la wax ne problème ndox dina posé wu. Mhm. loolu loolu benn la. Mhm. comme mu la si wàllu courant tamit boo xoolee si département Saraya six communes. Mhm. mais Saraya rek si boppam sa commune Saraya rek moo am courant. xam nga loolu loolu jaadul. ñu dem si walu jigéen ñi mooy eh, eh, jàppale jigéen si seen si seen si seen liggéey loolu yëpp problème la ah. donc jigéen ñi amuñu amuñu financement jigéen ñi war na leen jox ay para ay périmètre maraîcher fi nga xam ne dañu fay def ay ay liggéey dañu fay def ay activités ndax xam na mu mu njëriñ la ëllëg mais loolu yëpp lu manqué la suñ demee si xëy ndaw yi ndaw yi ñu ngi fii di traîner su ndaw yi buñ demee si société lu ñuy wax ndaw yi am ñu qualification am ñu lu ñuy fii la mais qualification moom naka la mën a amee te alors que ngeen nekk fii noo doo leen su eh, assisté wu maanaam assisté si naka ndax ñu fii nii centre fi ñu am sampoon benn centre de formation professionnelle je pense que centre de formation professionnelle dina njëriñoo xale yi ëllëg dina njëriñoo société et dina njëriñoo euh, euh, population Saraya mais mais souvent Malla Soumaré comme par exemple askan wi dëkkee foofu ñoom suñuy dem di liggéey si ak entreprise boobu ci exploitation or bi ak kii bi naka lay demee est-ce que askan wi dañ leen di signer contrat wala ay journal ay journalier la ñuy liggéey ñu leen di fay ay euh, par jour euh, xaalis boo xam ne du leen jëriñ dara comment ça se souvent euh, le fait que askan wi suñ seen bopp waaw waaw mënuma ni waxal ni direct nombre de contrat ñu fa am mais kon ñu am fa contrat ñu fa am contrat nga xam ne bi doomu département bi la bëriwul loolu moom mun naa ko kii mhm. ak condition lu ñu liggéeyee foofu loolu ma mun mun ma mun wax si dara mais lu ma xam tamit comme li nga wax si wàllu liggéey gis naa ni am na benn système bu ñu doxal foofu mooy rotation benn xale da ngay dem xëy nga xëy une semaine ngay toogaat après ñu jëlaat yeneen ñu xëy mais ñu am contrat bëriwul donc euh, ñu am contrat bëriwul mais souvent doon nañu wax tamit euh, xale yi dañ leen di exploiter foofule est-ce que da koy dëggal waaw wala déet xale yi tout tànk yi dañu dem di liggéey ci or bi pour moo wax si loolu xam nga il faut ma xam ne ñu ñu fay liggéey ñu in ñu ñëw expliquer seen condition wala ma am accès foofu. d'accord te aw ma fa accès donc là mënuma tontu. si mënoo si si loolu. mais ñu gis ni ñu ngi yaa ngi wax si communiqué bi trois cent milliards la entreprise bi moom euh, di lekk askan wi ñoom ay miettes la ñuy daal di am. est-ce que mën nga ñu expliquer loolu lu tax nga wax ko. waaw lu tax ma wax loolu boo xoolee ay dividende benn kii la benn bataaxal la lañ génne woon mooy dividende maanaam actionnaire ñu moom action actionnaire yi nekk ci société boobu donc boo xoolee ñu ngi seetlu tant que ñu ngi séddaloo ay trois cent milliards entre eux population nga xam ne or bi fu mu jógee moo ñoom ñu ngi dund su doon su su su su nakal su dul noonu donc loolu moo waral tànk mo loolu moo waral ñu jóg di xeex di dénoncer lu lu acte boobu. Euh, léegi. Euh, Mal Soumaré est-ce que code bi dafa am par rapport ak lu muy wax si lool ak yéen li ngeen di kaas parce que mënuñ comprendre exactement yow lan ngay kaas bu dee duggoo si biir liggéeykat yeeg yooyu waa xam si wàllu entretien bi mun ma dugg si code bi loolu beneen kii xam naa ne beneen combat lay doon code bi nii donc euh, lu mën si mun a voilà après lay doon quoi mais yéen waa forum civil lan ngeen di suggérer kon Euh, mmh. état bi par rapport ak exploitation bi am foofu ci ci Sabodala le fait que euh, askan wi daal gisuñ seen bopp ci or ba nga xam ni moo fa nekk léegi lu ñu suuka lu ñu kii nii si ah, ci état bi maanaam état nag gën a gastu si affaire si si si si si société yi. Mm-hmm. parce que eh, son président son excellence euh, monsieur le président génnoon na benn bataaxal si benn conseil des ministres boobu mu eh, jox ay kii ndigal kii président eh, premier ministre ndaa di société yi gën a accenté wu si si recrutement et gën a accenté wu si implication maanaam population euh, locale. donc loolu état ba léegi lu ñu kii ni si état mu gëstu si loolu bu baax a baax di ko surveiller daal di ko xool aussi de près. maanaam nga ne lan nga bëgg état di gën a surveiller euh, ñi nga xam ni. les accords waaw. ñooy exploité or ba ci Sabodala wala accord mais état bi nu muy surveiller accords yi mu signé moom ci boppam. Hmm? non wax mu accord yi de. su ma ne euh, maanaam digal ay côté employé employé emploi des jeunes. ay côté jumtukaay yi ñu war a defar ci euh, euh, euh, communauté bi mm-hmm. donc si côté boobu état dafa war a gëstu si loolu bu baax a baax Euh, tey jii boo ñu waaw boo ñu doon wax si souvent euh, parce que bu ñu waxee problème mu chômage des jeunes xam naa mhm. waa Saraya duñ si des ginnaaw tey jii boo doon suggérer état wu Sénégal par rapport ak jeunes yi nekk foofu mën a am liggéey si euh, lan lañ leen mën a jàppale exactement. waaw si lan lañ mën a jàppale instant yi lu ma lu gën a fës nañu tabax fi benn ay centre de formation professionnelle. Mhm. bu fii benn centre de forma de centre de formation xale dinañ fa dem jàng xale dinañ fa dem suivre formation yi te bu ñu paree formation dina leen jëriñoo te dina jëriñoo état bi dina jëriñoo eh, eh, société bi donc loolu mooy sax bataaxal nañ samp fii benn centre de formation professionnelle euh, si si si si wàllu ndaw centre de formation professionnelle professionnelle waaw maanaam léegi pour mu tàggat ndaw yi si lan ay ay jàng métier ay jàng ki comment dire encore ay métier ay dawal engins yi maanaam lépp li nga xam ne de de day am rapport ak société yi. waaw mais mais wow. après bac lay de centre de formation boobu. ñu am bac ñoo fay jànge wala. c'est pour non, tous les jeunes. non non bu ñu waxee ñu am bac ñoo fay jàng loolu de dina dina am problème. parce wow. que fii Euh, maa ngi def benn digression xam nga fii nii l' éducation la y' a la déperdition scolaire totale. Mm-hmm, mm-hmm. ndax y' a manque de moyen pauvreté yi nga xam ne xale yi amuñu moyen di poursuivre seen jàng yi. Mm-hmm. ñu si bëri dem ba bac wala ñu dem ñu si bëri dañuy dem ba waa euh, waajal def bac sax amuñu moyen di di continuer ñu hmm. daal di abandonné donc boo nee ay bac donc loolu ça sera erroné dina am indi indi ay. waaw léegi centre de formation bi dafay accessible pour pratiquement tous les jeunes wala. tous les jeunes waaw euh, accessible pour tous les jeunes. léegi pour ñu fay jàngale lan. waaw waaw ah. pour la ñu fay ah. jàngale lan exactement loo xam ne dina mën a jàppale ndaw yi. lu nga xam ne ça a rapport avec la société seulement. su euh, si liggéey société yi wala ëllëg boo génnee si centre de formation bi mun nga créer sa projet ah. mu nga créer sa projet wala mun nga créer sa leneen ndax taux de chômage bi wàññee. Mm. léegi léegi yow lan nga bëggoon euh, maanaam entreprise bi ngeen di dénoncé nii ban taxawaay moom la waroon am pour askanu Sareya Sabadola gis seen bopp ci or ba am foofu. nan nan nan gën a nan gën a doole euh, gën a dooleel seen seen taxawaay nan gën a gëstu ci population bi gën a euh, euh jàppale population bi sur tous les plans bu defee loolu. xam naa ni euh, si population. mais mais mais gën a dooleel gën a jàppale population xam nga loolu c'est vague. waa c'est vague. si côté si si wàllum jàng. waaw éducation si wàllum santé. si si wàllum sport. si hmm. wàllum euh, liggéey. donc nañ gën a gëstu nañ gën a jàppale population si loolu. mais euh, autorité yi amul benn explication bu ñuy joxee le fait que di euh, côté yooyu amul ndox amul courant wala feebar faju jafe na fa euh, souvent surtout si côté ndox be courant bi bien explication la ñuy joxe. non par exemple explication yi ma joxe xam nga sa département Sahara dafa am lu wax rek dafa vaste te pauvre. xam nga si wàllu ndox comme ñu ngi si nord instant boo xoolee à partir de mois de février mois de mars léegi toutes les communes auront de sérieux problèmes euh, d'eau mhm. donc du coup bu ñu samp ay ay bu ñu mënoon def ay château d'eau mhm. mais dëkk bu ne eh, ñu fay def ay forage ndax que la population ait accès à l'eau xam na loolu lu bëri la exemple waaw mhm. donc loolu loolu ça manque ndox bi. ndox bi courant bi nag. Mhm. courant bi surtout courant bi surtout boo xoolee comme lu ma wax rek la. Saara rek rek moo am courant bi Saara rek. Mhm. waaw rek moo am courant loolu du euh, voilà kon peut-être euh, dernier appel booy lancé Maal Soumaré peut-être autorité yi wala entreprise yi exploité or bi foofu ca Sabadola. non comme lu ma wax rek la mooy ku nekk na sàmm sa sa sa sa sa kaddu rek ku nekk na sàmm sa côté rek. état mu def mu war a def société bi tamit mu def mu war def ci population bi ndax mu mu njëriñoo population bi. voilà Malla Soumaré maa ngi lay jaajëfal. merci beaucoup ne yow yaay coordonnateur bu section forum civil ca Saraya euh, nekk euh, section sénégalaise bu Transparency International. effectivement.